une bonne question bi nga laaj noonu dama ci kontaan lool yoon bu jëlee piste bi jëlee ba ñëw Daaru Salaam képp ko fi jaar comme xalifa tawat na ko nguur gi piste bi xonq bi fa nekkoon sax suñu bàyyi moo ko tawatoon Abdou Diouf mu def ci xeer bu xonq te diggoon na ko ne dina ko guddoon ne xëy na nag yàllaa ko dogalul woon waaye ba tey ñu ñaan nag nguur gi di ci ñaan président Macky pour mu jàppaleen ci yoon bi ndax ñu suñ suñu feebar bi ak suñu jàngoro bi mooy yoon bi waaye bu nu amee yoon bi rek salaam loolu de li nga wax tonton moo ngi ne ñu ngi ciy ñu ngi ciy taxaw ñu ngi ci am yaakaar na jafe-jafe bi moom metti na fu mu foo ko toll rek ëpp na ko foo ko toll rek ëpp sunu suñu oto yëpp yàqu na suñu oto yëpp yàqu na nit ñi dañuy foncé kenn xamul nu waaye dañ ciy jànkuwante jafe-jafe ba yoon bu amulee jànk jafe-jafe rek la hmm. waaw loolu rek moo fi nekk góor gu baax te ñu ñu ngi yaakaar nañ ne dinañ ñaan xalifa bu bees bi ñun waa njabootu Cheikh Mahfou tawatal ko jooyal ko hmm. pour mu ñaanal ñu yàlla ndax nguur gi xel xelam soppeeku ñëw ci yoon bi